ginñu booyal naanu waaw waaw bay ba dinde ginñu booyal naanu bay ba dinde moola sagal ginñu booyal naanu borom boroxaan ma yamba jël naanu ginñu booyal naanu bay ba dinde maam jigéen ñu booyal naanu semu taxaa nee na sunu liggéey bi nangu na jigéen ko yal nanu moo maroom moom ñu boyal nanu si mu taxaane na liggéey bi na bool ñi boyal nanu moo maroom moom man jigéen ñu boyal nanu jigéen ñu boyal nanu بيت لله بويال نانا بيت لله يا جيجين يا بويال لا اله الا الله بيت بويال نانا بيت لله بوس جارا مام جارا مام جارا اب جارا ما فرسدو maam jaara amul moroom masa am moroom yaa ko waral sa doom maray karaama sa baal jaara fa maam jaara maam jaara maqaama maam jaara la kero waaw waaw subhiya am jaara maam jaara ko am maqaama maam jaara jërëjëfati maam jaara ay jërëjëfati maam jaara faral sa doom waaw waaw jom fal jinne maam jaara am tey ay junni bare bare yaa ko waral sa mam jaara jërëjëf mam jaara ka xarful jërëjëf mam jaara koyu rafet waaw waaw rafet yéeme jaara ma mam jaara xarful jiime jiime koyu rafet ba mu doy ba mu doy yakal nga ba waa jeere fujoore yakal nga waa géej gi maam jaara yakal nga waa jeere ba ñëpp gi jël maam booy fujoore lay lay la la lay la la jaara baa bay pelinde yaa di yaa di كلنا عبد لا إله إلا الله سخنا جارا لا إله إلا الله لا إله إلا الله maam soxna jaara ما أرى منني لك يا إلهي ولا أنصح جارا جارا أنا أرى منني لك يا إلهي وسبالي تكلنا نجيني مام صح جارا أنا أرى منني لك يا إلهي وسبالي تكلنا soxna jaara soxna si xalaara mel ni yàlla yàlla